te waxoon nañ keroog ne taw bi yàlla rek moo koy wàcce waaye ni ñuy fexe ba du lor nit ñi ci loxo yi nit ñi la nekk loolu kenn mënu koo jéggal kenn li fekk sottiwul amul benn dëkk bu mag ci kaw suuf boo xam ne bii tey jii ndox maa nga fay taa loolu dañ cee jubloogul waaye doxuk jamono weesu na ko fépp foo xam ne am na ay yoon ay tali la bëgg a wax bu ñu koy liggéey dafa war a ànd ak pax mu xóot moo xam ne ndoxum taw ma ci lay dugg ndax bari na ci ndox yoo xam ne fa muy war dem tëli bi moo ko tey dem dana ñëw ba ak tëli bi mënut a jéggi mu war dugg ci fa mu kon boo xawma ku ko war a defar ak ku ko ko war a sant ak ñu ñu ko war a sant waaye jot na sëkk te ñuy waxante li nekk te ku war a jóg xoole nga jóg xooleel sa bopp bañ a toog ñu naan la nii la demee ak naa la demee kese kese kese jox woon nañ misaal keroog ci yoreynu Seydina Omar ibnu Xataab joxe tegtal ci ku ñu nguurug Haaruna Rashid yoreelu Haaruna Rashid ñoom ñëpp nag ki leen jàngal defar leen dese lu bari mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jóg na seetali boppam ku ko daa lor ku ko daa lor di ko dogale ci aw yoonam di ca teg taxas yoo xam ne daa bëgg bu ca jaaree diggee jam ko wala bu ca jaaree mu bam fagg mu war a wàññi ko dama defare waat ko ba mu xëy xëy gisu ko daa xam ne nit ñëpp ak njabootam la wa maa ka illaa kaafatan linnaas xamut ku ko bañ ak ku ko bëgg kookee ba mu xamee ne ci njabootam la bokk gisatu ko faw mu jéem a xam lu tax gisatu ko ndax nit nit ki moo leen boole pas-pas bi moo ko wuutale moo ko wuutale woon kon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee seeti ko lu mu ko wax yow laa seet si ndax yaa nga fa doon teg laa gisatul te muy lu koy lool bokk yi kooka wuute na lool ak koo xam ne kii soo nekk ko ma te nekk ci digg ndox mi du lu mu dugg la muy dugg da koy dab donte day des coono dana ñëw yàlla na yàlla defal dégg ak topp te fàttaliku loonu njàngalem yonent bi ak doxinam ana waaja lu mu mujj wax ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullah sore na lool ak fii ñu toll fi toll nii ci jamono fi ñu toll nii moom lu waaye di mën a wax kam ko séqalit am na ku muy doon da koy jëw walla mu jaar ko feneen fexe bañ di la jëw itam nag bàkkaar ba ca waay ji amee bul yaakaar ne da nga ci mucc fexe bañ di la jëw bul yaakaar ne mukk bàkkaar ba da nga ca mucc yow ndax boo defutoon kenn du la jëw يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين